Laurent am na ñaari avertissement Alliance Baldé am na benn ndeysaan mbokk yi arbitre bi silvaan na combat bi Laurent Ndiago moo ñu wan ginnaaw Alliance Baldé moo ñu wan kanam ñoom ñaar laalante nañ léegi laalante bu neex xeex xeex bu neex Alliance Baldé dem ar do ñëwaat c'est Ibra Bakhoum waaw waaw ngi xeex daje nañu laay laay la laa non dama ne saway su ko booy bi dàqaatee mën na ko jëli cabaxam ou mën na ko mën na dal ñaar tànk la ilaha booy bi ndeke mbër la de Laurent Ndiago ndeysaan Laurent Ndiago rakku Liss Ndiago daan na man c'est xoolal supporters yi ndeysaan la ilaha illallah xale yooyu ñoo ànd ak ñàkk jëriñu waaye cay bii bis jàpp production cay bii bis wul ñàkk jëriñu production bool am na li ma la waxoon guddi ñëwul eh ñun dañuy décembre bi. daan rek lañ sa mag bi jooy ndeysaan. kan la. gabaar gabaar gabaar. gabaar dafa jooy jooy métti. xool oh, léeg-léeg ndax xangal la dañuy ay sañ-sañ yoo xamante ne day métti si ñun. mais lii tetes metes la. mais ñëpp jëloon favori bi joxoon alliance ba nga ñëw di sant ñëpp. da yokk maas yokk doole lu ko. non sax su ma ñëwee ngeen yokk maas man xale laa. ni ma bëgg a tool naax tool mais kasa moori burkaani kasumay bale maa ngi sant àdduna ah maanaam samay sëriñ yëpp maa ngi leen sant avant tout booy du mag ñoom barki allah ji du mag maanaam batis moo bëre loolu ci kaw jël ko dama xaa njëkk a tante daw jël mu contre ma ma kor ko ba mu moor dóor ko ay uppercut yu neex mu dem naa ni soow ñëw ma dawaat non bu baax daa entraîné quoi mais ba ma xa daane mu naan woy sama nday yàqu naa